damay na na mooy dama gis ñu am boo xam ne am na quatre mille emplois direct et indirect avec projet bi ñu toog xam ne man dama ah, gars yi ñu ngi ñaan ngeen partagé boo leen duggee rek ndaw yoo xam ne ci biir Agnam la ñuy toog ma ne ci ñu ñu toog ñu jékki-jékki projet te far ba mënu ma indil yoo xam ne ci biir Agnam la ñuy topp. gars yi ngeen partagé ah après nag euh, ñu daal di amal waxtaan merci beaucoup. Euh, Farba doy na man naa ko njëkk wax deux mille dix huit xam nga ñii dem nañ sax ba deux mille local di ñëw ñu doog wax doy na ñoom ñëpp xam nañ ne man deux mille dix huit laa wax doy na. merci beaucoup. li may wax doy na mooy dama gis ñu am projet Prodac boo xam ne am na quatre mille emplois direct et indirect.

dafa am fleuve am ndox am lépp commune bu ci nekk am na ay village yoo xam dañ nekk ci daanu maaya bi ñu ko defee ñu entreprise TSE bu Cheikh Amar gagné machine yooyu ñu indi ko ci daanu maaya bi indi ko ci commune Agnam man maa ko réceptionné bi ma ko réceptionné ñu testé ko ak waa sayt benn machine baaxu ci sa commune bu nekk 27 euh, machine la commune bu nekk machine yi mu ngi ñu cinquante 54 millions benn machine laa wax ba tey tàkku ci kon autosuffisance aar yi bu amulee échec bi ñu am mu ngi dépendre ci société boo xam ne dañ ko joxoon ay machine wëndil ñu ko ñu yóbbu ko ci fële Sénégal bi testé ko benn machine baaxu ci ba tey boo leen demee ci ancien commune mairie bi fekk ngeen machine ñu a jël machine yi denc ko ci biir mais boo demee ba tey ancien mairie Agnam bi boo demee da ngay fekk machine yi ci biir dem jël ndaw fuuta yi yóbbu ko ci àll bi pour nit ñi di fa bay kon su fekkente ne machine yooyu baaxul maire ba fa nekk delloowu ko société ba ko nekkoon

il fallait que ñu am demande sociale bu ñu def ñu jël booseya chaque village ñu jël fa trois personnes man maa doon présider réunion yi ak yaayam Abdoul Kane boobu nekk gul ministre ñu dajaloo ñu ne dëkk yëpp nañ dem ñu def benn programme ñu bind ko bind président public Macky Sall ne nañu defal ci diggante bi hôpital parce que cinquante cinq kilomètres dañuy jóge pour évacuer malade dafa metti mu loolu moo tuddoon commission boosey bu nekk ci biir bo ci biir boosey ñu réunion ko ci commune yëpp def document présent ko président de République jox ko Farba mu yóbbu ko ñu président nangul ñu loolu indil ñu hôpital ci biir Agnam parce que boobu bëggoon nañ lépp lu ñu soxla ñu am ko ci biir ci ñuy jël benn da ngay dem dem Agnam mu rafet mais président de la République Macky Sall moo doon defal tali bu jógee Ndioum jëm réseau gi añam lay jaar man añam lay jaar mais boo jeexalee loolu demal ci Agnam nga xool marché Agnam ba dam mel un maire bu doon digne maire

dañ ko liggéey nit ñi dañ laa bëgg da nga dem mais base bu ñu jënd moo fa nekk mais base politique boo xam ne dañ ko liggéey mu ñor nekk fa farba buy dem Agnam day jël dina jël euh, cinquante bis mais dañ jël cinquante bis vingt cinq ñooy njëkk a dem benn bis bi ku toog ci place ku ne dina am cinquante mille francs booy dem dañ lay jox trente mille boo ñu boo ñu bisee ba ñu jox la vingt mille francs jóge Dakar dem jëlal cinquante bis bis bu nekk nga calculer ko soixante dix places moo ci nekk soixante dix places bis bu nekk ñu kenn place bu nekk ñu defal kenn ku mille francs nga jël bis bu nekk mu nekk sept cent mille aller retour loolu ñaata la ci xaalis mu jël deux cent pick-up 4x4 pick-up bu nekk trente cinq mille francs par jour chauffeur xa dinaa egg si loolu di nga am di nga am di am di nga am cent mille franc booy dem mais di nga am cent mille franc booy dem. léegi xaalis boobu nag kiy dépensé loolu ci xaalis est-ce que kooku mën ngaa dem nga ne base politique bi mu am añam base boobu ndax dan ko dan ko da base militantisme la mbala base boo xam ne agent de conscience la askan wi lañ jënd seen i baat. Farba musul am benn mitin boo xam ne góor sol na tiset dem ci mitin bi te amul tiset bi ak juróomi téeméer amul benn jigéen bu mas a sol wax si te soloo ko ak juróomi téeméer. su ko weddee na dem leen ngeen ne ko na woote benn mitinu politique boo xam ne du joxe ñaari dërëm kenn du ñëw ma ne kenn du ñëw local 2014 bi muy nekk maire man maa ko njëkk proposé document yi muy sama oto ndax booba dafa am lu tax mu proposé woon ko na nekk maire mooy mu ne ma du ma ko mën a doon li tax mu bañoon ko du ma ko mën a wax ci tour parce que affaire ethnie la ma ne ko ñun soxla wuñu loolu li ñu soxla mooy président de la république mooy président de la République yow géwalam nga te suy voyagé da ngay ànd ak moom dama bëggoon nga nekk maire Agnam pour nga gérer ñu ay coopération internationale ñu jël ville yi président di dem dëkk bu mu dem. déglu leen li muy wax bu baax déglu leen fii mu toll nii wax dafa am solo ngeen dégg ko déglu leen. dem capital bu mu wàcc su demee di seeti président ba yow nga dem seetal ñu maire de la bu capital boobu ñu def coopération yoo xam ne dinañ mën a am ñu développé añam Agnam tali jaar na fa dem. Agnam amul assainissement euh, Agnam environnement ministre la l' environnement du ñëw Agnam parce que Farba amul vision ministre bi yor assainissement du ñëw Agnam parce que Farba amul vision benn ministre benn lenn rek fa ñëw mooy président de bu ñëw di politique. am nañ chance nag président mu ngi fay dem jaarale fa benn tali defar fa benn hôpital en demande sociale ca jamono bi codey di am problème mu ndox laa wax ndox Farba mu ngi bënn forage ci toolam bënn ko ci këram këram laa wax moom. sociale lañ am mooy responsable yu déggo di liggéey ci seen biir. ah ben dof bu jité ben gox ay dof né mom top ci ginnaawam gox ba du mësa a lijjanti ko tout récemment gis ngeen ni ñi démé ni ñi démé Matam suñu waré dem dem tok devant télévision yépp yëpp dajale xaalis cotisé dem jox ko askan wi dajale la buñu paré wanaat leen ginnaaw. mais bo jallé commune Agnam bi nga xamné Farba infilié ci président tout ba nga xam ne am nay lampadaire génnal nga dem ci lañ ba xamné ne ko fekk lamp nga dem Daabie ba xamné ne fa denk lamp wala nga dem ci yeneen commune il le coordinateur du département mais il le coordinateur du département. boo leen demee ngeen vérifier seen bopp ngeen laaj ko bilan en tant que maire mu bàyyi li président de la République Macky def ci commune bi mu wax moom lan la def ci commune bi réalisation bu mu def ci commune bi ba tey càngool yi jaar ci biir dëkk bi di jël ndox mi di ko dagg di daaneel kër yi ba léegi càngool yi mu ngi jaar foofu benn càngool yi ñu ko foofu benn infrastructure ne tali la bu ñu wëralee dëkk bi mu jaar ci dëkk bi parce que Agnam oto yi dañuy jaar ci biir dëkk bi risque de accident moo fa am comme ça dëkk bi côté bee waalo la kenn mënu fa dëkk ndaw yi nga xam ne dañu war a am ay kër am tali boo xam dafay nekkaat kurus lii muy gën a dooleel dëkk bi. Mm-hmm. maanaam procédure bi ñu tolloon ci projet Prodac bi maanaam pisciculture lañ amoon yéene jox ma ko mooy fi ñuy nappee jën man ma defaral leen ma waxtaan ci ak chef d'entreprise bi gañewoon marché bi ba nu juboo ci sous-traitant wu ci marché bi réunion bi assisté nañ ko. ñetti orateur moo fa am parce que Farba fekkeewul réunion bi en direct la woon man la ak mun ma dem ak la la troisième adjoint su lay baax bi ñu paree man du problème mu projet Prodac bi gañe naa ko wala gañe wu ma li amoon solo mooy ñu def projet bi projet bu ñu buukalee financé ko la ba pare ñu ñëw BAD moo ko financé bi nu ñëwee ñu teg ko projet bi teg ko lépp ba pare ba ñu yaakaar ne ndaw yi fuuta yi jóge nañ ci jafe-jafe ñëw fii di am ay salaire yu cent mille francs di am jafe-jafe duñu mën a dimbali seen parents yi dañ jóge ci loolu añam ah tey bu ñu ñu jekki-jekki xëy gis projet bi dematul xa xa maanaam garab ya sax fa ñu woon def projet bi bu la neexee ñu jël say caméra ñu def garab ya sax dagguñu garab ya laaw àll ba ñu war a def projet bi garab ya sax dagguñu ba tey xaalis bi xamuñu fu mu dugg Mame Mbaye Niang dellu siwul wax ñu projet Prodac bu bu boo saye lan moo ko aborteel Farba Ngom dellu siwul wax ñu projet bu boo saye lan moo ko aborteel président de la République Macky Sall dellu siwul bu boo saye lan moo ko aborteel te ñu ngi lancé appel président de la République Macky Sall na vérifier e, bi nga xam ne moo gagné woon machine pompe ndox yi nga xam ne ñoo waroon dem ci daanamaay bi su autosuffisance à riz amul ci Sénégal le principal responsable c'est Cheikh Amar nañ ko laaj nag Farba Ngom nga xam ne commune am Cheikh indi woon na ay machine man naa ko réceptionné ah du keneen ñu teg ko sama buntu benn immeuble bu may tabax mu sonal ma ma fay ay nit cent mille francs ñu déplacé ma ko tegal ma ko ci buntu mairie bi li ñuy wax mooy bu jeunesse bi taxawee di déplorer añam doxul dañ bëgg Farba ngoom dem toog di wayal Macky Sall di ko taggal mais ñu tànn ay ndaw yoo xam ne ay ndaw yu baax lañ ñu fal leen ñu yore commune bi ñu nga xam ne la fa war ci wàllu environnement war ko ci wàllu assainissement way wàll war ko ci wàllu xëyu ndaw ñi ak liy sécurité ak ba ne ci dëkk ba ñu mën a fexe ba loolu am ca dëkk ba quoi mais soxlawuñ maire boo xam ne xaritu président nga rek bu boo toogee juróomi weer ñëw woo paay jël sa salaire ne séddale naa ko jël sa salaire wu député ne séddale naa ko dëkk yi dëkk bu nekk am 500000 francs 350000 nga ne étudiants yi nekk université laa koy jox quoi boo ko dee tëjaat benn jour bu toog di wate budget wala muy def dara. am am maanaam conseil municipal amul conseil conseil municipal xam bu Farba bu ñu ñibbi kenn ku ne dina am 50000 francs. bu ñu demee ne ko Seydou Ngom Seydou Ngom bu ñu paree pare ci amul lenn lu ñuy defar ñoom. dañoo for eh, hmm. hmm. eh, xam nga coowal coowal pétrole bi amoon Séné eh, coowal pétrole bi amoon ba amoon Sénégal am na ci loo xam ne ñoom boo gisee président de la République Macky Sall man ma ne ko président ndaw yi Macky ndaw yi Sénégal dañ la yaakaar erreur bi Ablaye Wade defoon bëgguñu ñun alliance pour la république mu dal ñu bi ñuy wax ak senegal yi dañ leen wax ne nanu fal danañ fi dindi xëccoo ñetti mandat ñaari mandat lañu def ku fi ñëw dem. soo gisee attaché wu ci premier troisième mandat bi mënuñu ci wax lu leer pour lëndamaay bi ne ci pétrole boobu moo tax troisième mandat boobu mun mun mun lom ma ma ma wax la ne pétrole pétrole boobu amul Sénégal Farba Ngom bu setoon du attaché ci président république mu mu mu ba président ba ñu quitté quitté au pouvoir yemuñu laa wax ñoom si si si loxol ba na président république woo nag woo CREI ñu enquête Farba Ngom laaj Farba Ngom ban société la am ci Sénégal ak ban patrimoine la Farba Ngom am Sénégal ak avant 2012 lan la Farba Ngom amoon Sénégal ba Farba mën a toog di foowee ay milliards ñu koy jàpp ci aéroport ak xaalis muy génnee alal ju dul jeex di luye ay bis di ko dem ñu yóbbu ci askan bi nañu président de la République wax Macky Sall yan société ak yan revenu la Farba Ngom am ci Sénégal ba mën a am ba am ba am ci lool li nga xam ne mu ngi doon ñëw ci commune Agnam nag li nga xam ne mu ngi doon ñëw ci kanamu Agnam nee naa ko nag man saa yu la neexee yónnee ma citation directe lépp loo xam ne yónnee nga ma ko maa ngi ñu taxaw ci kanamu tribunal j'ai tous les preuves parce que xam ne lépp man maa ko doon réceptionné man Farba en tant que personne du sama noonu waaye nag damaa yërëm ndawu cadre yi nga xam ne ñoo nekk ci région de Matam nu war leen jàppale ba ñu liggéey tey ñu xëy rek dañu indil ay raxaskatu bool université ay yanukatu bool ay gardekat ñu soxal nañ jeune cadre yi nga xam ne dañ jàng am université ñi am bac plus 4 ñi am bac plus 6 ñu restauré ba dugal leen ci gouvernement bi ba nga xam ne fii fukki at ci kanam wala ñaar fukki at ci kanam añam ah, am ay ndaw yoo xam dañu nekk ay directeur wala ñu am leneen pour euh, avenir u mën a jóge fi mu nekk dem ci feneen parce que ñëpp xam nañ ne Matam dafa dafa dafa dataar bëgg Abdoulaye Ndiaye la ne ci mouvement de soutien comme ci li ñu Fatoumata Ndiaye def bi yàggul dara Fouta Tampi parce que jàpp nañ ne Fouta Tampi yaa un slogan la boo xam ne dafa dajale woon mouvement yi nekk ci Fouta yëpp man Ablaye Ndiaye maa njëkk am passe activiste di déconné ci ni Farba Ngom yoree commune Agnam ak département bi gaa yëpp ne nañ fexe ba doomi Fouta yëpp di ko def ñun ñu jël benn confiance porté ko ci Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mu yoroon kaddu waaw mouvement Fouta Tampi ci diggante bi mu changé discours changé ko euh, changé changé président bi mu njëkkee tourné Matam di dem li mu njëkk a génnee mooy lu tas mouvement Fouta Fouta yi nekkoon ci biir Fouta dañ ko échec parce que ñun dañ ko teel a yëg dañ ko yëgee ñu lancé alerte eh, conférence de presse bi njëkkoon def loo ñoom Kelel Ndiaye gis na bu sotti woon mooy booba benn mouvement bu nekk ci biir Fouta dañuy détourné dootul am mais ñu ngi déploré waa askanu Fouta pour ñu gën a jàpp as ña fa nekk parce que li nekk mouvement Fouta Tampi nekkul ne Mathiar Sall bu arc raisonnement tam nekkul ci Moussa Baydi nekkul ci Diouli Diaby bu Fouta Insoumis il faut ñu xamné dafa am ay doomu fuuta yo xamné ne seen ngor ak seen dignité ñu ko déssé ba tay voilà dafa am lo xamné ma ngi leen di ziaré bu baaxa baaxa ba di leen jox seen way di bëgg amal ak yeen nak waxtaan ndax waxtaan bi mom toujours ñu koy amal moy éveil de conscience di bëgg nak ngeen partager té comme niñ koy défé toujours dinañu gën ñëw di yaatal waxtaan ci yenen page yi aussi. ndax comme niñ leen koy waxee toujours dinañ ñëw ci page Ousmane Tounkara bi di ngeen ñu ci dégg incha allahu rabbi ñu ci live lu bari léegi di partager aussi yeneen page one million marché yi ngeen abonné wu massivement ngeen partager live bi soo leen duggee parce que loolu li muy waral rek mooy ñu fexe information bi jàll yegg fi mu war a dem te liñ ci jublu aussi mooy euh, vraiment ñu yee doomu aadama yi te ñu teg ko ci dëgg xam nga quelques-uns l'appellent un président quelques-uns l'appellent un gouverneur de la France quelques-uns l'appellent un traître quelques-uns l'appellent un khatkhana quelques-uns l'appellent un poulard. quelques-uns l'appellent euh,

tous les grands scandales du Sénégal Macky Sall est l'auteur déglu encore les wax bu baax scandale bu mag bu am Sénégal nit ñi naan président dafa wara dak président dafa wara indi ñi président dafa wara jubanti président dafa wara régler problème ils n'ont rien compris le président Macky Sall est l'auteur de tous les grands crimes du Sénégal loolu defe naa yéen ñëpp boo leen fàttalikoo biñ fi wax problème mu euh, Aliou Sall six cent mille mooy problème mu euh, Frank Timis ak Aliou Aliou Sall ndax yéen a ngi fàttaliku ne projet boobu bi mu amee xaw ma dàq xaw ma démissionné xaw ma lu mu doon dafa tombeek booba temps la Thierno Alassane Sall ministre de l'énergie l'énergie doon génn léegi mu tombeek ka fa nekkoon muy Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye jël document falsifié ñu falsifié ay document yu bari document yoyu la Macky Sall signé document yoyu la Aliou Sall mën yor pour accepter li nga xamné Franck Timis mom moy contrat am ba nga xamné mom lañu signé contrat bobu le BBC génnoon ñuy joy ci affaire u six cent six mille milliards boo leen ko aussi touti damay indiwaat rek xel yi le gars Amadou Wuri Diallo ki ñu jàppee woon ci jaaykatu garab yi fële ci euh, maanaam Touba ñu jàpp ko muy jaay faux médicament ñu condamné ko teg ko kaso. kan moo ko génnee la président Macky Sall moo ko gracier mu génne ko mu daw génn réew mi biñ ko waxee mu ne waaw moom gisul moom dañ ko indil rek ay document ci kaw table am ne ko signer mu signer fatale leen affaire Amadou Wuri Diallo ñu ñëwaat touti rek delu delu kanam ñëw kanam le président Macky Sall est-ce que xam ngeen ne bép crime manam bép détournement de deniers publics bu am ci Sénégal le président Macky Sall il a les documents té mi ngi ci teg kuddam ñii ne chantage la koy doyee ñii ne voilà lii la koy doyee ñii ne lële la koy doyee waaye man dama leen di wax lim koy doyee mooy le président Macky Sall bépp alal bu ñu sàcc ci Sénégal dañ koy daggal wallam en soixante ou soixante di pour cent mu denc mu jël sa dossier bi teg ci kuddam est-ce que xam ngeen mooy Sénégal xam ngeen ni système bi di doxee Sénégal mooy nit ku def tappaleem ñëw ci benn société def tappaleem waa ji ne ko xam nga defal dara donc c'est comme ça Macky Sall il fonctionne ñu bari ci yeen comprendre ñu lool bu ñu waxee rek ñu né non Macky Sall waaw vraiment dafa yaru dafa nangam voilà Macky Sall vraiment mom mo yor li mom mo yor lele mom mo nek di lijjanti li c'est le père de tous les délinquants du Sénégal bép say chay bép satch bép tapalé bép njuuj njaaj crime bu xew ci Sénégal Macky Sall moy bay lolu motax ngeen gis jafe-jafe yi ñuy dund tay ci Sénégal ñukoy koy dund te Macky Sall fasul yéné ben yoon nak buma né ben yoon fasul yéné bouger Sénégal maître dina xex ak ñun dina jëm dina jëma a jël ay bakkan dina jëma a ay doomu adama dina jëma a faat ay doomu adama dina jëma a manipuler ay doomu adama parce que pour mom fofu rek mo dess xam nga yéen ngi déglu waji mu ne Macky Sall ba mu démé fouta son seul objectif c'est de déjà mouvement Fouta Tampi mutaslen Le mouvement du Fouta à mais c'est ça que Macky Sall fait même dans les réseaux sociaux loolu moo tax ngeen gis ma def vidéo bu gàtt boobu may waxtaan ak suñu xarit on a trop de renseignements généraux dans les réseaux sociaux bari nañu ay fenkat bari nañu ay tappalekat bari nañu indil ay fausses informations ma bëgg ngeen bàyyi xel ngeen yeewu waat ngeen xoolaat seen taxawaay c'est pas tout le monde qui t'appelle ne la waaw yor naa ay information yu xa yu baax vraiment dinaa la jox wax la Macky Sall li mu def fii li mu def fële wala yow nga tëb nga jël information yi nga daw ak moom déedéet vous êtes assez intelligent de recevoir des informations de les vérifier avant de les publier Bay leen nit jogé na fële rek ngeen jël ko ne ko cabax ci biir live mu wax masiba naaru layam yépp indi fenam yépp teg ko loñu ko ñun après bu live bi coupé yow tu es là et tu as un problème problème bi ngay am xam nga moy lan la def pour li mu jël dugal ko ci sa live bi ba mu génn ci

c'est les réseaux sociaux ndax lu mu wax suba bala midi di jot ñu démantale ko lu mu indi suba bala ngoon di jot ñu tas ko Tapalé ak ñu njaaj ak wuru ju waraj seytaane na fekk bu mu indi le matin avant 11h ñu tas ko donc le président Macky Sall il a des problèmes très sérieux en ce moment xamatul fu muy tek tankam. ndax bi ci mujju du ma ne bi ci mujj ñun ñëpp ñu koy seetlu muy mbirum Prodac bi ma dégluloo leen ko xam nga ñun euh, yàlla dafa def nag ndeysaan Macky Sall dafa defe ne ay dof la ko seqal yu bari dama bëgg ma indil leen ngeen déglu et c'est important ngeen déglu lii dama bëgg ngeen déglu c'est important hein? ñu àndandoo ñun ñëpp ñu déglu lii parce que nous notre pays est devenu dangereux aujourd'hui ndax boo gisee ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal xamatuñu fu ñuy teg suñu tànk Moustapha mu wal fajiri dafa am wax lu am solo te Moustapha li mu wax après dinaa leen indil vidéo bi ngeen déglu ko déglu leen. Kim Seck dafa def benn vidéo boo xam ne ñu ngi koy tegaat ci net bi wax ne Mame Mbaye Niang ci affaire Prodac bi toog na conseil des ministres Macky Sall tiiñal ko ne ko xaalisu Prodac bi fu ngeen ko dugal Mame Mbaye Niang jox koy chiffre Macky Sall ne ko c'est pas vrai li nga wax amul ba keroog nee nañ miiru conseil da doon

les yow day conforter parce que dafa mhm. euh, euh, euh, dans le haut niveau. moné mhm. dans le haut niveau. il mhm. yi doole ma may ah. vidéo. différence entre

est-ce que comprendre nga mhm. loolu. dégg nga ce que veut euh, moom dégg euh, kii. Mhm. Euh, kii di Sonko. dégg moom lañ doon xaar. Mhm. mu def erreur dara comme ça. mu def erreur voilà foofu la foofu lañ amee problème ak justice Sénégal. voilà te dinaa ñëw léegi. Cheikh Diar am na ku ma dégg fii démb fii la toog ci mu ne waaw Pape Ndiaye ngi toog fee kon Kone ngi toog fii. mu ne waaw. Ousmane Sonko niveau bi mu toll ak ñi ko topp am na lapsus yoo xam ne waroo ko def. waaw yaa amul doomu aadama buy dox ci kaw suuf. te doo def lapsus. billaahi lapsus mooy moo bi génne sa bopp bi. waaw te ci li wax contrôle douane. Mhm. ñu noonu la ko suñu prof daal expliqué. Mhm. mooy man maa ngi wax nii li may wax dafa am fu muy jaar benn genre contrôle douane mu koy segg. Mhm. pour mu mën a génn ni ma ko bëggee yenn saa yi mu am loo xam day rëcc ci contrôle douane bi génn. waaw waaw génn. moo tax dalay wan ne mbir mi du Les politiciens nous lapsus mhm. pour régler les comptes politiques. c'est ça Motax mhm. les politiques sont ay différents magistrats il rek a mhm. y a problème. voilà. vidéo cher Yérim tapalé bi ñuy wax xam nga Yérim man parce que c'est le plus grand imbécile de tous les temps. man teguma ko saram xoonam waa jooju moom yàlla nañu yàlla dimbali rek te suturaal ñu te musal ñu ci ci gilaawaaleem xam nga da ngeen fi fekk keroog ñuy wax rek ci euh, mbiram yu ndaw mais dafa dépassé Cheikh Yérim foo leen ko xalaatee rek dépassé na foofu foo leen ko xalaatee rek dafa dépassé foofu dafa am foo xam ne euh, ñun

waaw parce que yenn saay ndeysaan ngay nit ku baax ci sama xalaat ci sama xalaat bokk ngay nit ku baax nga sekk ak imbécile comme suñu Adja national Adja national mu sëri Adja dégg naa moo dem jin mu lëndëmal TV Adja dañu bëgg nga xam ne Dame jin alalu deret la la takkee maanaam alal ba nga xam ne 14 sénégalais yi dee ci Sénégal lim ci récupéré ak accident ba mu defone feulé ci yoon wa yoon wa kungel ba ba mu amone ay rescapé ak ay nit ñi dé ci ñu jëlone alal bobu jox ko ak alal bi nga xamné mom la nekké di alimenter télém bobu di yak Sénégal nekk naa intercontinental ah ak moy yalla ak ngemb bobu muy tak voilà day day tak day sol couche Adja national yawit lay waaye pareeguñu dinañu ñëw xeex ak yéen parce que ku yaakaar ne di nga jël Ousmane Sonko nga jaar ci kawam yow nga mën a toog sa kër nga sëy ak ak salaam da ngay nax sa bopp déggu leen ma de ku yaakaar ne yow da ngay tuutal le président Ousmane Sonko wala sax amaana nga font ko nga ñëw toog sa kër doo am jàmm dégg nga voilà léegi Eh, damay laajaale rek rek eh, njabootu Moustapha Diakhaté seen papp bu mën a duul bii di wër télé Sénégal yëpp kii ndaw si Oumou Sall la tudd Oumou Sall Oumou Sall la tudd Oumou Sall mii am na lu mu séq ak Moustapha man xam naa lépp léegi nag Yen laa bëgg ngeen indi ay léral wala après man ma indi leen ay léral ndax man j'ai les informations Moustapha Diakhaté da ngay génn nga wax sa njabot takku suuf la wala cioro la wala njuj njaaj la wala ci lan ngay dox ndax xam nañu lepp Oumou Sall mi mo doon sey ak Modou karambak donc amna luñu xam nak comme niñ la ko waxee ñun nag lépp lu ñuy indi rek dañ koy indi ci dëgg ci dëgg rek ci dëgg nag Oumou Sall mii bëgg nañu Moustapha Diakhaté télé Sénégal yi yëpp war nga ko ak sa làmmiñ bu rëy waxal gaa yi kan mooy Oumou Sall ak lan ngeen séq ndax takku kaw moom amul léegi bu dee takku suuf man naa ne am na def nga ko légalul de bu takku suuf nga def yow ya xam amana ya xam bu nak wala sa passe-temps la lolou tamit yow ya xam Moustapha jaxata lay wax borom lamine bu reuy bi pa bu njublang bobu ngeen di gis ci télé Sénégal yi ka Macky Sall dak ci ajak-jak ndaysan amul ngor manatul noppalu manatul bayyi xam nga nit bëgg na la bëgguma la yaangi fi taxu sa bop ken dara yow mbaam bi juddu ci ajag-jag moo la tane bëgg nañu nga wax ñu ndaw si kan la boo ko waxul ñun dinañu ñëw waxal la te bu boobaa nag dana métti de léegi nag ñu ngi xaar dañuy laaj donc looleen leen séq ndaw si c'est quoi la relation de Moustapha jaxate avec seddaam lan mooy seen relation voilà léegi buñu paré ci lolu ñu ci wat comme ci lima leen wax rek Cheikh Yérim euh astu njoon astu yalla dimbali na la parce que buma joomul yow numéro 6 nga won ci soxna yo xamné daf leen laxas jaan yow juróom bendel nga xeyna yalla dimbali na la genn nga fa yalla bula dara top nak ndax la plupart golo yi buñuy jila yak la ba pare boy dem dafa am loy yobale yalla na la yalla sutural dimbali la ar la ar sa famille loolu lañ lay ñaanal seex Yérim dañuy dañ koy yokkal rek parce que comme ñun comme niñ leen koy waxee toujours rek bu ñu tàmbalee xeex ak yow bii yoon moom ku ñuy xeexal dañuy xeex ak yow ba nga faatu boo faatoo sax ñu continuer xeexal yow ba nga dugg ci bàmmeel boo duggee ci bàmmeel ñu continuer xeex ak yow ba nga dem safara boo demee safara ñu continuer xeex ak yow ba yàlla nañu yow mii dootoo génnati safara bu boobaa ñu arrêté xeex ak yow donc je vais vous dire encore une fois Cher Yérim Guinée Conakry laaj ko lan fa dit, que Cheikh Yérim Vous ne temps yi Sénégal bi rek Guinée Conakry ko Vous dit Sénégal viol mais Cheikh Yérim dafa am double viol Guinée Conakry est-ce que vous nga violer ay est-ce que je suis dégg ci àdduna nit nga violé ba pare violé sëru que nga violé Cheikh Yérim c'est un professionnel violeur Madame, c'est un violeur professionnel xam nga dafa am violeur am violeur professionnel mom c'est un violeur professionnel et un imbécile de première catégorie donc que nous ñuy ci mbirum Cheikh Yérim légui Moustapha mu wal fajri vidéo Cheikh Yérim bi nga xam ne moom la leen di wax maa ngi ziyaare wala sama xarit xaadim maa ngi lay ziyaare xaadim ngay mu soxna baal xaadim daal dinaa la ziyaare ndax waa Touba moom saa yu ma la ziyaare ñu woo fi ñu ne ma waa yow li ngay ziyaare xaadim bari na ma ne leen dina ñëw jarul yàkkamti nañu continuer ziyaare xaadim rek muy jàmbaar voilà ñu ngi koy ziyaare xaadim mu soxna baal nañuy ziyaare rek voilà léegi ma ñëw encore toujours ci li nga xam ne moom encore une fois mon vidéo cher Yérim bi nga xam ne moom lañ leen doon wax léegi Cheikh Yérim dafa am lu mu wax ci Mambay Product. nañu Ande de dégloondoo Yérim Post j'ai le plaisir de revenir avec vous en vidéo sur un article paru dans Yérim Post le bloc qui enquête pour mieux vous informer sous le titre suivant sa démission a tardé. Mambaïnia a été acculé par Macky Sall en Conseil des ministres. La démission du gouvernement de Mambaïnia a surpris tout le monde, sauf Yérim Post. Votre bloc préféré a eu vent depuis plusieurs semaines du froid qui s'était installé entre le président de la République, Macky Sall, et son désormais ex-ministre du Tourisme, Mambaïnia. Un incident insolite et public a eu lieu entre les deux hommes de mémoire de ses participants, pareille scène n'a eu lieu qu'une seule fois en Conseil des ministres sous le magistère de Macky Sall. Celui-ci, muni d'un dossier, l'a ouvert, a pris pièce par pièce pour interroger Prodac. chaque fois que Mame répondait il a pris pièce par pièce pour interroger Mame autour du scandale Prodac. Comme dans un interrogatoire d'enquête pénale, le chef de l'État l'a questionné sur des points précis relatifs à des malversations. Chaque fois que Mame répondait, il le rectifiait, lui opposait des chiffres, des dates des précis. Pendant au moins une demi-heure, Macky Sall a acculé son interlocuteur, décelé des contradictions dans ses réponses, relevé les erreurs, mis en exergue les approximations. En un mot, il a confondu et enfoncé devant ses collègues. Je cite, L'interrogatoire était tellement sévère que tout le monde s'attendait à ce que Mambaïnian soit démis de ses fonctions à l'issue de cette réunion du Conseil des ministres à défaut d'être limogé, tout le monde a compris que quelque chose s'était cassé entre le président et lui et que son départ acté n'était plus qu'une question de timing, confié à Yérim Post, un membre du gouvernement. Lorsque le scandale a commencé à barrer la ligne des journaux, le feu qui couvait entre Macky Sall et Niang s'est attisé. Le ministre du Tourisme a dû être prié de bien vouloir démissionner pour ne pas avoir à être démissionné nous sommes à quelques mois de l'échéance présidentielle cruciale de février 2019. Le scandale Prodac, amplifié par les médias, fait désordre et n'arrange pas les affaires du candidat à sa propre succession. Macky Sall, qui joue sa survie, ne peut se permettre le luxe de paraître comme protégeant qui que ce soit et sacrifier un de ses boys au nom de la bonne gouvernance dans le contexte d'aujourd'hui est plutôt une bonne opération une action d'image dans l'opinion pourra. voilà mambay Mbaye Niang mii ngeen mi na Cheikh Yérim Seck mii ngeen di parce que ce muy wax ci à Mbaye Niang nii yëpp dëgg la waaye mom, lim ñu bëgg a Amadou Ba moo Cheikh le même Amadou Ba qui a fait fuiter le rapport le même Amadou Ba qui m'a même moi même appelé man mi di wax ak yéen Amadou Ba am lu mu tek sama loxo ci mbirum mambay nya xam nga senegal nanu bay tiaxan xam nga man damay wax senegalais toujours nee len nanu bay tiaxan xam nga rew ay tiaxan du ko doxal Amadou Ba mo nek au cœur de tout cette affaire de mambay nya lepp deug la Amadouba a les documents, Amadouba connaît la vérité, Amadouba, le même Amadouba qui se permet aujourd'hui de se taire parce que Mamak Mambaynia, fi mu tol ni ouais, dans waye dama bëgg ngeen xamné il est la source de tous les fuites sur cette affaire product, Parce que Amadouba xamna Macky Sall, xamna né moy bayu satchi, ndax mom Amadouba day satchi, té mon Macky Sall dañuy partager.

nañ ko weddi nañ ko weddi ne leen tunkara nee na ex boog la léegi ndax ñu ngi neexoo waaye ay ex lañu dañoo tas waaye ba léegi ñu ngi ci seen ay xarma ndax daf fi ñëwoon pour jëndab kër léegi ne ko man mane ne mu weddi tunkara nee na Mame Mbaye Niang soxnaam mi ngi woon Amérique di lijjanti mbirum jëndum kër daaw ñëw na fi jënd ay otoom yóbbu ren mi ngi won ci mbirum jëndum kër légui né leen ñu ñëw ñu wéddi koku fan lay jëlé xaaliss bay lijeenti ay jëndum këru Amérique parce que xam nañ né gouvernement Macky Sall ba ngi waja daan ñom xam nañ ko mambay ñaa ci bopam mo leen gëna xam né gouvernement Macky Sall bi mi ngi waja daan mambay est en train déjà préparer sa chute du Sénégal mi ngi préparer dawam génn Sénégal déjà xam nga événement mois de mars bi fi amé ne wan nañ leen Mame Mbaye Niang dafa woo waa Pastef di négocier di négocier wallahi billahi tallahi am naa audio bi Mame Mbaye Niang am na xam nga manque de respect lay bañ yenn saay ndax yenn saay bëgguma wax nu ma def ba am audio bi mais pas par autorisation donc j'ai un peu de difficulté à diffuser certaines choses donc il faut encore me dire borom fi ko mais Mame a carrément clairement essayé sa rentre Tibir Pastef sa rencontre avec le président Ousmane Sonko Légui, problème bien am fuite bobu bi mu génnee waa APR dañ ko Madame wolo

te wa APR er Mame Mbaye Niang ngi leen di yóbbaale ci masiba naru lay ndax ñun dinañu xex ak yeen ku len ko wax wax len deug ku len ko waxul nax len on vous on se battra dinañu xex ak yeen parce que bo len yaakaré né ci seeni ay gënt di ngeen mëna jël président Ousmane Sonko wala xagn ko nek président wala japp ko wala def ko ni wala def ko na yéen a ngi juum bu baax a baax a baax a baax a baax ci njuumte gu mag ngeen nekk quelqu'un vous a induit à l'erreur xaw ma kan la nag xaw ma kan la mais quelqu'un vous a induit à l'erreur te erreur boobu ñu leen induire ragal naa ne seen gàcce rek ngeen ciy jëlee seen problème ngeen ci ay problème ngeen ciy jëlee gars yi malen di waxat encore ndaje euh, bi nga xamne ndaysan mom moy am mbacke mbacke Bawol mbacke fele ca Touba boru Touba mbacke ñuy ñaan sénégalais yi la nga xamne defon ngeen ko Kër Massar mel ni tiaxan la comparé à mbacke la nga xamne amalon ngeen ko Kër Massar def ko comme mu melni lancement film la won on a besoin de deux à trois millions de sénégalais à Mbacké dañu bëgg ngeen tambalé Mbacké genn dëkk bi dem presque à dix kilomètres de la ville di ngeen dégg li président Ousmane Sonko di wax yépp inshallah lool loolu la ñuy ñaan dañuy ñaan des millions des millions de sénégalais 2 millions à 3 millions de sénégalais ngeen génn ngeen gàttanlu le président Ousmane Sonko à Macky ñu won Macky Sall ne sénégalais yi dañ ko wëccu maa ngi dégg ay layam-layame ay waaw xam nga Macky Sall wala day pousse ay élection Macky Sall baye mom mom Sénégal Macky Sall dafa am numu mu pousse ay élection Nako pousse du ko yeggali de bu sobe yalla Macky Sall du yeggali 2022 23 bi deux naka lay pousse ay élection moom du fekkee ay élection nu mu koy poussé loo dul fekkee naka nga koy poussé Macky Sall gumba tal na lu dul tëbub teen xam nga gumba am na lu mu tal dul tëb teen xam nga yow gumba nga doo gis am na leneen loo tal dul nekk fii di tëb teen Macky Sall moom moomul Sénégal moomul Sénégal Macky dafa moomul senegal moomu loi wu Sénégal yi bay pousse ay élection bi yoon moom gars yi sa gàtt sa rek nañu xeex après bu neexee armée bi ñu ñëw jël réew mi buñ ko jëlee organiser ay élection mais du ñu bàyyi bii yoon Macky Sall muy fii toog di fonton nit ñi ne day pousse ay élection deux ans armée bi jël ah, réew mi moo gën lool ndax au moins armée bi buñ jëlee réew mi duñ ko jàpp deux ans armée bi jël réew mi moo ñu gënal Macky Sall di fi toogaat beneen deux ans pour ngeen xam loolu rek dañuy xeex ak yéen xaw ma kan moo leen di advert advice di yaakaar loo leen gëm loo leen ne ñun dinañ fi toog di xaar Macky Sall muy pousse ay élection non élection yi puusul paasul dañuy xeex ak Macky Sall bu bëggul dem armée bi jël réew mi teg ko ci yoon ba pare organiser ay élection ku man sa morom daan point waaye Macky Sall duñ ko may fu mu pousser ay élection Et le président Ousmane Sonko, il n'a plus à répondre. Ousmane Sonko, il yon la porté ay nit plainte. L'aide nañ leen ko. on est dans un pays sérieux, il a porté plainte combien de fois? Une multiple de fois. Porter une plainte, porter plainte, porter une plainte. Pour suñu pas suñu n'y faalew ko. Légui, même justice si on moi Sénégal Ousmane Sonko fait la fay Quand a dafa am Sénégal dafa am justice bu justice. wala Gambie la ñuy attee léegi wala Kenya wala Mauritanie xanaa atteetu ñu Sénégal xanaa c'est pas les juges défaillants comme juge Mamadou sek ak ñoomin seen ñoo fa nekk ba léegi bu mu dem wuyu ji Ousmane Sonko bu mu puus bu mu paas xale yi xeex bi stratégie la ak xel liñ leen di bëgg a gëmloo ne leen tëll rek damm na déedéet jël leen seen temps jarul yàkkamti Ousmane Sonko la ñuy protéger ñun ak projet bi projet bi ak Ousmane Sonko mom la ñuy protéger té dañ koy def ci xel wala dañ koy def andak suñu sago nak kèn duñu yakamti lo kèn duñu teblo dañuy jël suñu temps ñu def ko ndank ci ñek ak terang inshallah rabbi grand ma ngi sant euh, gars yi maa ngi sant ñep di gëreem ñep di len joxat dig daje suba inshallah rabbi indil leen nag ay xibaar yu baax rek bu soobee yàlla di ngeen am ay surprise foofu laa mën a yem wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.